internet ak bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax baax ku ci nekk ci turam ak ci santam bu ñu taxawee fii di wax c'est parce que Ballon d'Or africain 2019 moom mooy li ko waral euh, li tax nag mu gën koo waral mooy suñu sakk daf cee nekk suñu fierte ki nga xamante ne nii il représente dignement l'Afrique mais le Sénégal bu ñu ko waxee suñu xelib da ci Sadio Mané 18 ans après El Hadj Ousseynou Diouf moom moo ko fi féete woon euh, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom jël loolu jox ko Sadio Mané mu féete ko mu nekk loo xamante ne nii lu fi gëjoon la mu nekk loo xamante ne nii lu ñu namoon la parce que bu sénégalais yëpp jugandoo mànkoo doon benn bootu ci ginnaaw ki nga xamante ne mooy doomu bu Casamance doomu Bambali muy Sadio Mané dafa nekk loo xamante ne nii fierté la bu ñu xoolee trois yi nekk ci podium bi moom la Sadio Mané Mohamed Salah ak ki nga xamante ne nii moom mooy Mahrez waaye Amina Ndiaye wàccoon na sur le terrain amal benn micro trottoir ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom dañu dem xooli loolu bu ko defee ñu ñëwaat waxtaanee loolu. mooy zoloon quoi mais vraiment Sadio Mané moom yàlla na ko yàlla dafal ci quoi vraiment sigil na Sénégal ci àdduna bi yëpp ba tax na léegi àdduna bi ñëpp xam Sénégal. Hmm. jóge na ci ballon d'or français bi yàlla jox ko ko tey nag bi ngi ci ballon d'or africain lan nga ci xalaat. ah mais yàlla na ko yàlla soo waroom jox rek moo ni ko Sénégal ñëpp kontaan rek loolaa ci xalaat ndax Sadio Mané ku jar a sargal la wallaahi ndax dama ne ku def dara am dara Sadio dafa sigil Sénégal dafa sigil Sénégal ci côté bu a génn sargal a gori ndax fu ñu doon dégg Sénégal rek yaa ngi dégg benn ñaar ñett Sadio Mané yóbbu na ko bay dégg senegal ci àdduna gépp tout tey amul benn bépp pays ci àdduna booy taxaw taxamuñu ko Sadio Mané te lan moo waral loolu moo ko waral quoi may ñaan nag kilifa yi ne Sénégal yëpp waa espoir waa làmb jeeg waa basket beeg waa bël beeg maanaam waa rugby beeg ñi espoir yi fi nekk yëpp yaa ngi dégg ñi koy def yëpp bu jour ba ñun ñëpp nañ génn. sargal Sadio Mané doomu Sénégal boobu noonu di ko yàlla sama borom defal ko gudd fan ak wér-gu-yaram lafal ko ci at musal ko ci seytaane musal ko ci pexem noonu ndax Sadio Mané ku jar ñaanal la ndax dëkk ba mu dëkk la mu fa def rek war naa tax ñu koy ñaanal bu baax a baax ndax am na ñu liggéey ay milliards te dëkk def seen poste duñ ci jàppale kenn kon Sadio bu yàlla dimbalee muy gañ a xaalis di dem di ko loo ci waat yaa ngi dégg ci askanam rek dañ koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla jàppale ko moo xam lu mu bëgg a football bi yàlla na ko yàlla sama borom defal lu kawe njottam ak équipe bu Sénégal bi yàlla yóbbu ko ci man tamit joueurs yi euh, euh, bi yëpp yàlla na yàlla sama borom jàppale Sénégal jëm ci kanam quoi. gis nga de li ma sañ sax moom macha allah dafa am. moom xam nga rek ci laay jóob ci ngay jóg waaw ci laay jóg. waa ballon africain bi suba de lañ koy joxe suba ci set avril bi ci Égypte. Mhm. koo yaakaar ni daal moom moo koy war jël. waaye Sadio lañ ko war a jox. waaw dimbali ñu ñun sénégalais yi joxal ñu ko Sadio ñun saajo lañ gëm de waaw buñ ko ko joxee buñ ko ko joxul yëpp affaire bi moom la waaw moom lañ gëm daal waaw. bu ñu jógee ci ballon d'or bi dafa mel ni ñuy accueillir Sadio Mané ci musée des civilisations maa ngi koy waaj. waaw incha allah rabbi loolu moom yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ñu fekk ka tal ka. waaw incha allah Sadio Mané ballon d'or wala du keneen. waaw moom rek moom ñun moom rek amul leneen. waaw ñun Sadio leen gëm Sadio ca kaw ca kanam yàlla na ko yàlla jàppale waaw lii nii muy séntu nii bëgg ci ndam yàlla na ko si sunu borom may ndam bu baax te yàlla na ko jël bu baax waaw ñu feete ko feete ko bu neex fii Sénégal. ci gàttal daal Salah ak Mahrez dañuy xaar nan dem toog na le waaw te bañoo ak Sadio ñun Sadio lañ gëm Sadio lañ xam moom lañ dëkkal moom lañ xam waaw loolu daal mooy wax ji. ah ballon d'or africain bi moom wax dëgg yàlla moom performance yi nga xamante ne Sadio Mané def na ko moom moo ko moom quoi parce que ku ñu doon tëkkalee ay ñoom kiris Messi si ballon d'or européen bi kooku yaakaar naa ballon d'or africain tëw ko quoi pour ñun moom moo war a moom ballon d'or africain bi. te ñun war nañ ko ko jox quoi parce que lim def lim def si football lim def si football gisuñu koo xamante ne def na ko si football quoi à part ñoom Messi Chris wala dara. kon daal ci gàttal Mahrez ak Salah dañuy xaar. non ñoom ñoom dañuy xaar moom. dëgg yàlla Sadio moo ko dëgg yàlla moom lañ moom moo ko moom moom lañ ko war a jox. bu ñu jógee ci Ballon d'Or bi dafa mel dañuy fii Sadio Mané accueil boo xamante ne dañoo bëgg sénégalais yëpp teew maa yaa ngi ci biir ci musée des civilisations lay xewee. non ñun moom pare nañu wax dëgg yàlla léegi léegi moom nga ñu fekk ñuy waxtaanee si biir pare nañ te dañuy dem teeru suñu jour incha allah ñu dem jëli ballon door bi indiwaat ko Sénégal bége incha allah. kon daal fas yéene ngeen takku ba mel ni naanaa commencé ko charette ba yoo def seen ay ñëmbat dem musée des civilisations génn sigil Sadio Mané. ba pare nag def drapeau Sénégal bu rëy xam ne Sénégal moo war a am ndam incha allahu rabbi ànd seeg Sadio Mané dañuy takku ba mel ni naanaa yow pare nañ. mais lool du laam-laame nag. on est fier d'être des Sénégalais et on toujours être parce que nous sommes des Sénégalais Sadio lu mu def ñun suba ba ngoon jot loolu lañ bëgg parce que ñun ay footballeur lañ te moom la ñuy suivre jour suñu jàppee télé moom la ñuy seetaan rawatina nag bu ñu taalee sunu seen YouTube fu ñu dugg saajo la ñuy wër lu dul moom amuñu leneen yow rek saajo maane nga. man kay Sadio Mané laa weddiwu ma ko mais dafa mel ni sénégalais yu bari Sadio maane moo tax ñuy supporter Liverpool. non si man Manchester United mooy sama équipe mais su may supporter Liverpool rek Sadio moo tax. parce que sénégalais la parce que c'est la première fois ñu am sénégalais boo xamante ne nii partout dans le monde foo dem dégg ko dëgg la amoon nan Fadiga amoon nan El Hadj Diouf mais Sadio daa ñëw battre record kon lu ñu def lu dul di ko jàppale di ko ñaanal te xam rek jàmm bu ne soxla nga ñaan te nit ku ne ba ci yow ba ci man ba sunu caméraman bu jantal bi moom tamit kenn du moom. sama caméraman kay jantalul wuy ma max rek ak Salah dafa mel ni dañuy xaar de. non dañuy xaar ñooñu Salah troisième lay dem. du doon sax deuxième kon nan ñaan yàlla nag yàlla jox ñu pay bi rek ñu ñëw feete ko fii te bu soobee yàlla doon koy feete. ci gàttal kële dama ni ko mu takku ba mel ni naana mais yow da ngay takku ba mel ni takku dute fas yéenee dem musée des civilisations ci manifestation bi nga xamante ne moom la ñuy def ngir leen sagal Sadio. la bis bi dana mel ni tànn beeru mbott. nu muy def foo tourné fu ne ngoog ngay dégg. non Sadio jël na ko bu yàgg jël na ko bu yàgg bu français bi sax moo ko waroon a jël mi ni doon xëccoo nii ba xañ ko ko nii sax moo ko waroon a jël mooy yoon lu Lionel Messi sax xam na ne Sadio moo moomoon ballon d'or bi bañ na ko ban ban ko koy jox da xool sénégalais yi chaque instant xam ne ballon d'or bi pour Sadio la woon daal bële mais bii moom jël na ko bu yàgg wax fa dëgg yàlla waaw. donc Mahrez ak Suarez ban position nga leen di yóbbu. non Mahrez mooy jël deuxième moom. waaw parce que Salah booy xool pere woon na si jongante bi bu yàgg. Mahrez moo jël coupe d'Afrique bi force mu jël deuxième quoi loolu mooy am sax waaw. ginnaaw ba ko El Hadj Diouf jëlee 2001 ak 2002 dafa mel ni jamono ji moom euh, Sadio Mané pare na pour dekkalaat lool. no bien sûr bien sûr Sadio sax euh, lu raw loolu lay dekkal man na dem sama club rek Real Madrid ñu xool incha allah lu raw loolu dina ko jël bu neexee yàlla waaw am na fulla am na jom macha allah. jàpp nga ni saa Mané bu duggee biir Real Madrid moom moo fay doon leader. non bien sûr bien sûr loolu kenn mënu koo laam-laame am na jom am na fulla Zidane bëgg na ko macha allah te nit ku ñuul la bu demee day wane boppam. waaw club bu mag la moo tax faa mu wane boppam dina joxe lu leen mën a xam si àdduna dina ko joxe incha allah man maa ko wax man Pape Mar. ginnaaw loolu nag ah bi biñ koy waajal. association takku ba mel ni naanaa ñoo ngi ne association takku ba mel ni dute ñoo ngi ne le fa séene wutali musée des civilisations ngir lan ñëw foofu noonu euh, taxawal ba pare siggal ki nga xamante ni moo di Sadio Mané yaa ngi koy waaj. non bien sûr bien sûr takku ba mel ni naanaa ku naanaa ku nekk xam ne ne dafa am classe ku tuddee sa bopp naanaa le xam ne naanaa dafa am classe bu demul si attaaya attaaya du neex waaw boo bëggee sa tension wàcc da nga koy naan mu wàcc nice macha allah takku ba mel ni naanaa moom pere nan pour dem incha allah. ndax bu buñ fa demulee luwel ba du neex wax fa dëgg yàlla waaw. man nag damaa bëgg waa caaro dugg ñëmbat. ñëmbat nekk ci kaw du yuuxu ba musée des civilisations. non bàyyil ñu dox amul problème ñun waa caare lébu lan bàyyil ñu dox ba ba es ba fan ka kay joxe incha allah mën nañoo dox daw ba foofu ñun ku ku ñu gis xam ne bu neexee sax bañ a jël oto dan mën nañoo dox ba foofu ñu jox nu ko ñu waat ñëwaat ak moom macha allah ba bu mag bi bu mag bi lan soxla soxlaa ñu bii incha allah te bu mag bi bu neexee yàlla déwén si kattanu suñu borom dina baax incha allah. incha allah jaay. waaw xanaa saa yoo jël ka rek. waaw parce que métti na ko quoi ak lu mu compétir yëpp si année loolu dara sax moo jël quatrième position si ballon d'or bi quoi waaw métti na ko trop moom franchement parler. kon daal ci gàttal Mahrez ak Salah dañuy doxantu ji jënd bonbon. ah ñooñu koy bàyyi. mooy loolu. <laughs> mais à part nag yaa ñu waajal. mouvement bi di def dem fële na la des civilisations. waaw ñoo ngi waajal bu baax ñu ñoom dañuy dem dañuy teew quoi waaw ndax ñun moom Sadio rek la ñuy bëggee quoi ñu kenn ku dul Sadio te Sadio moom sigil na Sénégal moom ñëpp kontaan nañ si loolu nag wax dëgg yàlla. xale caaro yi nee nañ jàmm laa pee la ñu woote fa seenee taqu ba mel ni naanaa yow nan ngay taqoo. ah dafa comme yëfi sportif rek yaa ma gën a xam. def sa vert zone étoile ba nga yóbbu ko fan. ah ndox du bàyyi yoonam nag tamit. <laughs> kon gisandoo mbokk yi yaakaar naa ne nag cette fois ci yaakaar du tas comme ni mu tasee woon ci ballon mondial bi. bii nag boo xoolee sénégalais ku ci nekk ambiance bi mi ngi ci ñoom ñu ngi fecc ñi ngi koy manifester pour xamal ni Sadio Mané que ni boo jógewee Égypte incha allah mardi 7 janvier 2020 ba jël ballon d'or bi dangay ñëw nag diwaaru ndakaaru boo ñëwee ndakaaru far ngay dem ñu ne da ngay dem ci musée des civilisations noires foofu lañ koy sargalee mu nekk loo xamante ne ni ça fait plaisir ndaxte Sadio Mané il nous représente dignement Sadio Mané nit la boo xamante ne nii ful la jom ak fayda bu ñu koy wax non doomu bambale bi tax na ñu gën koo wax bu ñu fonkee doomu Sénégal doomu bambale bi tax na ñu gën ñoo fonk muy nekk loo xamante ne ni dégg nañu réaction sénégalais ku ci nekk li nga wax fi mu toll nii nag ñaan moom moo des ñaan suñu borom mu may ko li nga xamante ne ni moom moo dëgmal lépp lu mu dëgg dëgmal ci carrière am ñu ngi koy ñaan suñu borom yokk loolu ful loolu ba mu nekk l'homme le plus titré au monde ci lépp nag ñu ngi ko koy ñaanal parce que boo xoolee Sadio Mané lu baax li muy def ci réew mi. yemul rek ci football Sadio Mané mi ngi ci école yi mi ngi ci hôpitaux yi mi ngi ci jàkka yi te yaakaar naa ne c'est l'essentiel mu dimbali ay dëkkandoo mu dimbali ay mbokkam mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ba benn yoon incha allahu rabbi te ñaan suñu borom mu tedd ki moom mi nga xamante ni moomul lépp mu jël ballon d'or africain mondial teg ko ci loxo Sadio Mané en 2020 ginnaaw bu ko ko joxee 2019 ba pare jaa ngeen jëf. Ankale ak kay